moom lañ def nii tey ñi ngi ci ba tey jeexagut ndax fii ba suba dañu bëgg fanaane di sikkar nekk ci maam Cheikh Ibrahima Fall euh, xalif général de Baye Fall ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax yebal na rakkam di sëñ Cheikh Astou Ndiaye ànd ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ñëw nañu tey màggal bis bi ñu ànd ak moom ak autorités yi nga xam ne ni moom la ñu président yebal mooy ministre d'État Mbaye Ndiaye ak directeur de cabinet secretaire général ministre de la culture et de la communication ñu dem def vernissage bi exposition bi bañ ko defee ça s'est bien passé ba ñëwee ñu toog waxtaan wax dëgg yàlla euh, rafet nañ njot ci bis bi ndax nee nañu bunt bi mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. alors particularité bi moom laay wax xam nga toujours dañuy jéem a def li gën def fexe ba gën a def lu gën a baax te loolu lépp nag mi ngi ci. fan fànn yëpp fànn yi nekk na ci wàllu organisation nekk na ci wàllu logistique nekk na ci wàllu sécurité nekk na ci wàllu ci ci ci wàll bépp tamit am nañu comité boo xam ne ñu ngi koy wax comité scientifique ba nga xam ne ay professeurs ay intellectuels d'université ñoo ci nekk ñoom ñoo xam ne ñoom seen xel euh, màcc na ci yooyu ñuy waxtaanee mbiru sëñ bi di jàngal pour jàngal gone yi nga xam ne war nañu ñëw ëllëg